Abdourahmane Sow ñu ngi lay nuyu di la dalal. Euh, maa ngi leen di fay soxna si di leen dalal. nga nekk COSEM 23 jiite commission orientation stratégie mouvement 23 juin euh, màggal luy euh, daanaka le 23 bii la muy suba date boobule tey ji jii suñu génération ñu koy fàttali ku wax ne 23 juin mu doon date bi nga xam ne marqué na sénégalais yi ngeen di waajal dixième anniversaire bi yéen ñi doonoon acteurs yi ñu bëggoon bëggoon a xam nan ngeen ciy taxawee. waaw ni ñu ciy taxawalee amaana xëy na sax bala ñu ci dugg baax na tamit ñu fàttali Sénégalais yi. Mhm. que ni juin. waaw fukki at ci ren. la ko sababoon amoon na solo trop. Mhm. te am na lu mu doon firnde. dafa mel ni askan wu doon juddaat moo mat boppam. Mhm. ñu bëri jàppoon ne que <clears throat> ticket présidentiel boobu ak vice président bi euh, président Abdoulaye Wade doon intégrer dugal rekk a taxoon. ñun ñi nga xam ne nekkoon nañ ay way politique yàggoon ci parti bi jàpp ne que mu jëntalu euh, euh, xeex bu mu yàgg la ndaxte tey bi président Abdoulaye Wade di doog a ñëw indi woon na fi yaakaar bu bëri et daan na góorgóorlu mais dañ dem ba ci kanam gis mu soppi doxalin mm-hmm. euh, lañ doon bañ ci PDS yëpp ñu koy gis dégg ay nouveau riche ay milliards dégg ñoom Karim Wade di ñëw fii plein pouvoir justice bi na muy doxee baaxatul jàpp tëj pasar pasare àlalu réew mi loolu ñu doyal ca ba faf nag ticket boobu ñëw mu indi fipp boo xam ne euh, xëy na société civile ko jiite woon ak way politique yi topp seen ginnaaw mais askanu Sénégal dafa génn hmm. mais moomaat na boppam lii dafa doy dafa dakk te boo leen seetloo après fa ñu jaaree ba président Abdoulaye Wade mujj ñàkk nguur ci hmm. donc loolu baax na ñu si bàyyi xel ne koy euh, waaw xeex bu yàgg la daal moo mujjee noonu du ticket bi rek suñu xëy na ñu am nañu jàpp ne ticket bi rek ñun jàpp nañ ne que nag mode de gouvernance ba fa amoon ndaxte bu leen fàtte ne assemblée nationale a na ko euh, loolu ak taxawaay yu ñu jot a am ay ICR ay Benno Siggil Sénégal waaye politique yi liggéey nañ ci ba mujj dil ci loolu am mhm. ñu ngi koy waajal comme ñëpp ñun cos M23 parce que yàlla dafa dogal le M23 boobu xëy naax saay mhm. ñun dañ teg suñu kuréel ko commission orientation et stratégie mhm. euh, nekkoon ci les du M23 nekk ci cos at bu nekk nag saa yu ñëwee dañuy def ay panel ak wala ay jox ay ay ay activité euh, toog dajee waxtaan euh, xayma mbir yi fu mu toll ak fan lañ ci mm-hmm. donc le 23 juin bii di ñëw dinañ dajee incha allah bu 9 heures jotee fële ci teeru bi euh, yàlla defoon nag ne bi mbas mi ñëwee dañ fa tegoon kuréel bu tudd REVOCAP réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé mm-hmm. boobu ministre jàppalewuñu président jàppalewuñu ñu samp suñuy mbir woo ay nit ñoom Aliou ci ña nga ca ñoom professeur Seydi ña nga ca jeunes yaa ngi ca ah, bëri ay vraiment profil yu bëri cotiser suñu xaalis nekk ci xeex bi ba léegi ñu ne ah jot nañu wax Sénégal yi jot nañ ci def nii fii lañ jëm mais nag dafa am jàngat buñ ci am mhm. ñu ne baax na lool di xeex te kenn gënu koo mën kos M23 ci ni mu ko gëmee ak responsabilité parce que boobu ba léegi delluñ ci ginnaaw mhm. wante tamit baax na lool nga bokk ci ay taxawaay ak ay jéego yoo xam ni jàpp nga ni amal na sa njëriñ sa réew loolu la ñuy wax mhm. donc benn modèle la ci engagement citoyen benn modèle la ci euh, en tout ci euh, euh, engagement communautaire ak participation citoyenne nga am sa kattan am sa am sa jàmm mën a bokk ci mbir yi taxul nga ànd ak pouvoir ba pare en même temps bokk ci xeex ci la nga xam ne jàpp nañ ne lor nañ ci réew mi mais bañ koy defit nañ gëmee ne noonu lañ ko a defee mhm. noonu koy defee mooy euh, di wootee nan nga koy màggalee mu mel ni dinañu am wala dinañu gis ay xaajaloo ci màggalu euh, le juin ndax tey ji jàpp nga ne caractère euh, ban la la euh, bi lépp euh, date euh, bu révolution war a am waaw loolu baax na ñun ñëpp mënuñu déggoo ci benn kàddu en tout cas ci yenn yi parce que M23 vingt M23 le mouvement du 23 juin Sénégal yëpp ko moom kenn mënu taxaw ni man maako ko moom. Hmm. waaw am na ñoo xam ne mosuñu bokk ci kuréel si yu formel mais ba waree dem taxaw xeex dañu bàyyi seen lépp dem xeex ji. donc mënuñu ñëw ba tey jii ñun kos ñu naan ñoo ko moom wala keneen naan moo ko moom. Hmm. ku mu neex moog séntu asamaaneem taxaw nga teen rek gis donc baax na et puis dafay poser débat boo xam ne mi gis ñu kanam ñun dañ jàpp ne dañu war a am taxaw waxtaan surtout ñun société civile ak ñoom seen mm-hmm. ndax fi ñu jëm ku ànd ak sa sago mën nga ragal ni réew yi ci kanam mën laa tàkk ndax fitna yi fi am surtout nag ba ko njëkkee muy waxu troisième mandat mm-hmm. ak violence yi ñuy gis ci réew mi yenn saay mu nekk ci opposition bi yenn saay mu nekk ci pouvoir bi c'est de la violence verbale d'abord mais violence physique ak seen i néevi mais li ci ëpp solo mooy war nañ mën a toog ñu waxtaan ne troisième mandat moom leer na COS M23 moom kenn jiitu ko ci waxtaan bi daf cee yàgg xëy na waxam daa bëriwul mais la mu ci wax leer na le président de la République monsieur Macky Sall mi ngi ci deuxième ak dernier mandat am ñun ñëpp dañu coo war loolu du fi am hmm. beneen bi nag mooy ñu ñëwee comme que moom bu fiy parce que dañu jàpp ne que président euh, Léopold Sédar Senghor tubaab bee ñu ko imposé li ñu ni que Abdou bi ñu fiy ñëw article trente cinq fi teg c' est pas le peuple qui l'a choisi ñu jàpp aussi que ni le président Abdoulaye Wade jàmbaar la woon lool mais tout sauf Wade Diouf am na lu mu ci indi tout sauf euh, Wade tamit tax na président Macky Sall falu tey jii pour la première fois moi je pense que ni loolu njukkal lañu président Macky Sall amel ginnaaw bi mu ratee lu bëri hmm. mooy mu def la transmission pacifique du pouvoir à un autre Sénégal ubbi euh, page bu bees de son histoire politique ñu ñu ñu tàggat askan wi ñu dem inscrire yu ci liste ñu mën a arbitrer teg débat bi xool ñi nga xam ne dañ bëgg remplacer président de la République Macky Sall ndaxte amoon na fi ñuy def tout sauf rek ku jekku rek nekk président boo ñëwee teg ñu ay lor waxtaan boobu ñu teg ko te ñu ne ko am courage bi amul kii la faral ak kii moo fi euh, mooy Messi kii mooy Ronaldo yooyu amu fi ñuy teg débat bi xool profil xool parcours yi xool personnalité yi xool projet yi def débat au moins ñu xam ne euh, li ñuy wax Sénégal di di vitrine démocratie la en Afrique ñu bañ a nax suñu bopp. Mhm. ñeme ko bàyyi par parloo bi teg débat bi xam lan mooy société civile fii mooy place am xam ne ñii ay parti politique fii mooy seen place mu am pouvoir am opposition loolu daf mun cee ñàkk donc foog naa ne. lu ñu xaajaat la xaajaatloo war nañu mën a déggoo ci kàddu yi ku mu nekk neex na nag nga ne man maay M23 wala bés bi maa ko moom nga jël ko Sénégal ko moom kooku ñun gisuñu ci benn problème. bu ma la déggee ngay wax dafa mel ni yow jamono ji euh, li nga nam mooy ñu proposer askan wi euh, proposer tànn nouveau type d'homme politique. waaw nouveau type d'homme politique certes mais booy seet sax. li ñu gën a naqari mooy euh, soxna si boo seetloo. Mm. ñu waxante dëgg depuis mille neuf ba tey. boo bëgg a xas politique yi mais da nga naan lan moo soppeeku dëgg-dëgg ci réew mi pouvoir bu ñëw ak ay laagoom laago bu ñëw nekk fitna ci kaw réew mi boo demee ci hôpitaux yi boo demee ci liggéeyukaay foo mënti dem affaire yi jaxasoo na dara avancé wu. Mm-hmm. ñun li ñu seetlu mooy toujours benn groupe day ñëw am ñi lay jàppale buñ la jàppale ba nga jël réew mi faw nga séddoo ak ñoom mbir mi séddoo boobu après day wàcc seen ay militants. groupe bu ndaw la moo xam depuis Senghor ñëw ci Diouf ñëw ci Abdoulaye Wade ñëw ci Macky Sall nous constatons les mêmes limites de la chose politique mm-hmm. c'est un groupe qui s'intéresse à travers des postes électifs et des postes de responsabilité nekk ci bopp agence yi nekk ci bopp direction yi seen i militants la ñuy jox euh, après ñun nan lañ ciy gisee suñu bopp problème ñu doon dund ba léegi ci hôpitaux yi ñu nga fa problème ñu doon dund léegi ba léegi ci manque d'emploi bi ak ci chômage bi Euh, éducation bi ay kenn xamul dafa mel ni dara avancé wu ñu ne ñun suñu problème est-ce que du way politique yi ndax ñoon atteindre duñu seen limite ndax Sénégal pour mu màgg tuuti li euh, olof naan xar day weesu mbote ndax jotul Sénégal mi comme que expérimenté nañ ak euh, le système politique ce que du ñu xool sax un indépendant wala un indépendant boo xam ne bu bu ñëwee bu ko askan bi falee directement ay ay parti ay coalition yi duñ ko tënk ñu nekkaat paacoowaat affaire yi defaat la ñuy def ku leen wax ñu saaga la Euh, traité la de manipulation euh, def ay plateforme politicienne bi ñu nax dañoo doyal ci loolu mhm. pour ñun débat bi loolu la est-ce que politique bi dans en tant que système atteindre ay limites loolu débat la boo xam ne Sénégal yi dañ ko war a ñemee beneen bi mooy bu ñu euh, di wax président de la République dëgg jàpp ne jeexal na ay mandat mhm. mais war nañu mën a waxante ñun suñu biir dëgg war lu tax ñu am complexe xool benn acteur politique ne ko yow politique politicienne ngay def argumenté ko wala yow sa projet bi baaxul li ñu ciy a c'est du populisme wala c'est de la démagogie parce que doo fi ñu nangu tamit euh, ñu def ay taf yëngal ak par parloo ñu lay protéger démocratie soob président par défaut nous serons trop nuls maintenant nous qui avons traversé toutes ces aires politiques là hmm. ñun ñun doit partager avec les Sénégalais et je dis bien que ça c'est une obligation qu'on puisse poser le débat ku mu neexul nag nga nga pousse na le parce que réew mi kenn moom ko ñun ñëpp ko bokk am nañ ci droit dootuñu d' accord wala waratuñu d' accord ñun sénégalais lambda bi ay politique yi dañuy indi fitna suñuy doom yi di mi di jaxasoo pour ñoo xamante ni jeu d' intérêt crypto personnel politique politicien rek leen motivé ñii bi réew mi di tàkk daaw ñii ñoom ak Macky Sall ñoo àndoon naanaa maar c' ça le problème. justement ay principe a taxoon défendre ay principe moo taxoon askan wi wàcc ci suuf tey ji euh, onze ans wala dix ans après ndax euh, gis nga ne Sénégal am na lu mu jàng ci loolu. waaw Sénégal boof du ne en tout cas li ma ci jàpp mooy acteurs yi. jàngu ci dara keroog maa ngi am waxtaan bu mooy def naan leen dama jàpp ne ñu nekkoon ci M23 bi dañoo xaru wala président la na M23. ndax parce que waaw mënu ñu am M23 du nekk lu am solo mën a arbitrer neutre euh, diggante way acteurs yi ñu sàggan ba mu ba mu naax saay dee ñu di dem palais di encaisser ñii di gagné marché ji xam nga ñii dem nekk ci parti politique yi di nax ñu ci naan ñu ay ay ay société civile lañ foofu la ñu nekk ay cuuni ñun. et c'est dommage parce que c'était une trouvaille mbir la boo xam ne bu doon dund ñu mu war a dundee bu état ko wala ñu ci nekkoon tey jii dugg ci gouvernement beeg am ay poste ak ay intéressement Sénégal jiitaloon nañ ko kon xëy na tey jii dinañ weesu fii xëy na débat bi dina weesu fi fitna gi duñ ko xaw ma ndax askan wi de wax dëgg yàlla mais way way acteurs yi ñoom jàng ci dara dañ ko xëy na lu war lu dañ doon jàpp ne luy jaar la luy jaar la rek et comportement yi ñu fi jot gis si diggante bi jugee ci président de parce que problème yëpp président de la République ko président de la République monsieur Macky Sall moo indi problème bi yëpp parce que bañ koy fal eh, nit ñi deewuñu woon sax ak xiif nit ñi dañu a sax jéppi way xiifoon Abdoulaye Wade danañ tabax ay pont ay infrastructure dañ ne woon boo ñëwee problème fondamental bi mooy nga kër ay piliers yu am doole parce que jàppoon nañ ne dañuy jël nguur gi jël njaboot gi jox leen alal yëpp moo tax ñu doon xeex Karim Wade ñoom seen mhm. dañ jàppoon ne que président dafay jël institution yi teg Louga bu ko neex mooy jàll ku sàcc boo fa rek moom mu bàyyi la boo nekkee feneen mu duma la justice bi doxee nu mu ko neexee corruption bi am bu ñëw déggee ñu naan la plus de cent milliards de perdus euh, par la corruption au niveau de l'administration sénégalaise euh, euh, dafa yéeme comme su doon état amu fi problème yooyu amoon na fi. nga dem signé assise nationale dem ba ci yàgg naan j'ai des réserves moi je pense que président de la République dafa waxoon lu am solo te dañ ko koy delloo muy la le fait de dire que certains citoyens sont ordinaires et le fait aussi de dire que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. je pense que il s'est réduit, il a réduit sa mission à la plus simple expression d'un être ordinaire. parce que dafa amoon un un nombre de vision bu ñu doon xaar du ay pont lépp tabax pont lépp financé ñëpp mën nañ ko dañ ne mënoon nga xool nooy def ba alal askan bi li mu néew néew comme que mënoo leen jox ñu lekk ba suur comme que mënoo faj ñëpp dañoo am asal néew nga sécuriser ko jël say waa kër dàq leen ci biti parce que mënoo yor huit milliards ak lu topp say waa ñëw nga bëgg a leen davantage ci ay marché yu ñàkk fayda mun loo yor justice bi mu war nekk justice bu tëddee njaaxaanaay nga koy jël di ko utiliser bu dee jiw euh, c'est un adversaire politique nga duma tëj bu dee yéen bu ñuy jëlee lu alal réew mi nga mel ne dara xewul yooyu dañ koy doyal jànguñ ci dara loolu yëpp bu ñëwoon réglé ko ci njëlbeen xëy na tey ñu mën a xeex corruption amaat ay institutions yu baax mbir mi jaar yoon dinañ indi dal ci réew mi parce que li ci ëpp solo mooy la stabilité de ce pays c' est la préservation de la paix au Sénégal mais am na un mode de gestion un mode de gouvernance bu amee kenn mënu muus ba jàmm am mais moi je pense que c' est un débat à poser président jàmmali pare deux mandats dem ci jàmm ñun ñu ñeme ko dóorante suñu biir ba nga xam ne kii rek ci suñu di nekk président koo xam dañ ko sang ba mu set du am xet bu tilim ngir Sénégal jëm kanam. kon daal ci gàttal tey la waalo gën a aay. waaw tey la waalo gën a aay wax dëgg yàlla mais on ne perd pas espoir ce combat cette lutte on va la continuer en tout cas pour euh, jëmmal li ñu gëm ñun mooy l' essentiel le Sénégal le président saa yu defee lu baax ñun dañ koy wax daañu gisee ay ay ay ay réalisation dañ koy wax jàpp ne tamit Euh, opposition bi bu nekkee ci dëggam dañ ko koy jox. Hmm. wante bu ñu nekkul ci dëgg dañuy am fit wax leen ko parce que kenn yorul suñu ceeb kenn yorul ñuy def nii dañ cee yàgg ñu si bëri si ñoom sax dañu cee fekk kon wax dëgg yàlla euh, l' essentiel le Sénégal ñun noonu lañ koy matérialité mooy euh, xool liy dëgg ci suñu ay ay ay principe ñu doxee ko ñu wéyal ko. Hmm. xool tamit lan la ñu mën a apporter soxlawul président de la République wala mu ngay jox xaalis parce que moom réew mi moo tax révocable bi jël le trois juin jëmmal ko. mais un nouveau modèle d' engagement citoyen par le volontariat dañ koy dooleel et puis dootuñu yem rek ci santé bu ñu ko mënee def ci éducation def ko ci wàll yu bëri euh, dugal ci Sénégal yu bëri terew bu xeex jotee ñu jàpp ni lii dañ cee war a xeex wax naa la ko rendez-vous la révolution la ñaara mën a nekk mm-hmm. révolution guerrière mooy président de la république ñu dafay troisième mandat mbaa ñu def révolution intellectuelle mu dimbali ñu def transmission pacifique du pouvoir ñu wutal ko Sénégal jëm kanam Abdourahmane Sow ñu lay jaajëfal bu baax a baax. man maa ngi leen di bu baax a baax yéen tamit. ñuy fàttali ne COS M23 la bokk jiite commission orientation et stratégie bu mouvement 23 juin.